jàngale euh, loolu mat na fukki at te duñu am dara léegi fu ñu nee nii euh, li ñuy jël maanaam li ñuy jàngale si gune yi ndaw yi toll na ak juróom juróom-ñaari fukki junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróomi fukk gune yoo xam ne ni ñooñu ñuy jàngale at bu si ne fu mu nekk nii jël nañu euh, programme enseignement dans le préscolaire dem nañu ba poussé ko ba mu dem ba vingt neuf pour cent si loolu tey li ñuy bëggoon dañoo ñëwoon pour que vraiment ñu fàttalee suñu suñu njiitum réew mooy di son excellence monsieur Macky Sall pour que vraiment mu dimbale ñu maanaam yaakaar bu mu ñu joxoon bu mu doon ñëw si Sédhiou yaakaar bu mu joxoon ndaxte dafa ñu waxoon ne dinañu former te intégrer ñu dans la fonction publique yaakaar boobu dañuy ñëwoon fàttale ko son excellence pour que vraiment mu jàppale ñu mu former ñu ngir mu intégrer ñu dans la fonction publique ndax ne ni euh, coono ji yàgg na trop coono bi ñuy nekkee di dund nii du du ku moo koy nangu léegi si wàllum loolu moo tax tey ñu ñëw ñu taxaw fi di di di ñaani président euh, son excellence monsieur Macky Sall te ñun suñu yaakaar bi tamit nekk na si DG bi la la directrice de l' agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits Mayma madame Maymouna Sissoko Kouma moom mooy tey ñun suñu marraine bi moom la ñuy considéré comme marraine pour que vraiment mu mun a ñu jàppale si si auprès de son excellence pour que vraiment ñu dimbala ñu mu former ñu ndax mu mën a ñu génne si coono bu ñuy nekkee ndax ne ni coono jooju yàgg na ñu dem ba fukki at ak lu teg loolu du ku si ne moo koy nangu